الأرض فتادون أهوالا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كان مرسالا لتعقين مابا صدق الله العظيم شكرا الله حسنا أهلا وسهلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته am na micro foofu عمري سلام لي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم جزاك الله العظيم اوكي lii day yow lii nga tolloon tolloo ko ay laxal maan ak ay culture yooyu bàyyi ko du ba si kanam dem jàngal barakaatu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 على النجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النار معاسا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من الموسرات ماء سجادا لنورج به حبا ونباتا وجنات الألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا وفقيت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إلا خميما وخافا صدق الله العظيم أيوة بصيروا بري تاكلنكو كنت محمد جام ها الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واحد للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة وروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونرآه قريبا يوم تقول السماء كالمول وتقول الجبال كالعين ولا يسأل أميم أميما يبصرونهم يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبتي وأخي وفصيلتي التي تدوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لذا نزاعة للسوي تدعو من أدبر وتولي وجمع فاوي إن الإنسان قل يا لوان إذا مسه السر جزوعا وإذا مسه الخير المنوع إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمعلوم صدق الله العليم أيوه محمد شام تجلنكم محمد فريد محمد باري محمد باري ما تسمع إيه أيوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tedd man taallama alquran wa allamahu ci gën sama xeet mooy ci jàng alquran ba pare ko jàngale kon yéen ñi jàng allah man des fois dañuy taxaw ni ma saar nangal ba dafa du ma leen foogee foofu wax dëgg yàlla parce que yaakaaruma woon egg na foofu jàngal nañu ci suratu Mariam aaya bi nga xam ni euh, sayyidatuna Mariam yàlla daf ko may doom te amul boroom kër loolu yéeme na bi mu ñëwee ay mbokkam ni ko da nga doon foo di caaxaan ba indil ñu doom waaye doom ji nekk Seyduna Isa moom moo tontul boppam tontu boobu la ñu xale bi doon jàngal léegi xaala inni abdullahi آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا آه. تبارك الله مني ينتي يلا عيسى مني من جابو يلا لا يلا دفنا ما ينتي يونتي ما كيري دفنما لو ني تاري سورة الماو أيوة نقاو السلام عليكم ورحمة الله المرسلين على صراط المستقيم تنزيلا عزيزا رحيم لتنذر قوما ما أنزل اباهم فهم قاتلون لقد حق الهول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أحنافهم أحلالا فهي إلى الاصحاب فهم يؤمنون وجعلنا من بين أيديهم سقا ومن خلفهم سطا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذروا لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وأشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما هدموا وآثاروا وكل شيء أحصيناه فيما من مبين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 qaalu inna leen yonente bi yàlla ko yónni nga daal di taxawal julli woor weeru koor génne azaka su fekkee ni sa alal mat na nisaab dem màkk si soo ko mënee yii nag ku ci nekk jullit piir nga ku ci bàyyi benn nag sa julli wérul tabaarakallaahu aji yow la kat dëkk fan Lupa aja. <laughs> Baru kita lo cari. Suratul Mar. Suratul? Marij. Marij. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Ñu may xolal ñi di séddale nag ñuy ñaan rek mu bañ am benn bruit su amee bruit rek day yàq li ñuy li ñuy liggéey ngeen kenn ku nekk na toog fi toog rek ñi séddale na defee fi nga toog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 للكافرين ليس لهم دافع من الله ذي المعارج تخرج الملائكة والروح إليه في اليوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تقول السماء كالمهل وتقول الجبال كالإهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم ولا يقتدي من عذاب يوم ببنه وصاحبته وأخي وفصيلته التي يبتي وما سراد جميعا ثم يمشي كلا إنها لذا نزعة للسوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فاوى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزيل وإذا مسه غير منه إلى المصلين الذين ملا صلاتهم دائما والذين في أموالهم حق محروم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين صدق الله تبارك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينت يالبتد من man kaana yuminu billahi wal yawmil akhir képp ku gëm yàlla ak bisu penc fal yaqul xayr na nga wax lu baax aw lu yas na ko wala nga tek sa waaw ko ay la ci ko ma sha allah. cheio 哟。 Don't donte da ngay dem ba fa inna talabul ilm ndaxte sakku am xam faridatun faratala ala kulli muslimin si bepp julit bu góor wa muslimatun ak bu jigéen wasalaamaaleykum wa tàcc leen ko bu baax a baax a baax allah euh, nañu suratu yusufa jàngal ci ay ayat yu bari bari bari, bare te suratu ngeen dénk Yuusuf doon wax istaala Yuusufa li abihi yaa abati inni raaytu ahada ashra kawkaban wa shamsa wal qamara raaytuhum li sajidin macha allah yonente yàlla Yuusufa moom la ay mbokkam doon fexeel bëgg ko sànq ba dugal ko ci teen ñu jaay ko ba mu egg ci bi pour wax la ni la jaam ak pexem yàlla ak dogalam ba mu géntee géntam ni dama gént fukki biddéew ak ñaar ñu may si ak weer ak jant bàyyi ji ni ko bu ko nettali mukk parce que soo ko nettalee sa mbokk yi dañ lay fexeel macha allah waaye xadis yu ci teg mooy yonente bi nee na te gis nga yonente bi bi ñuy bi ñuy wax lii kenn xamul woon sax Chine fan la nekk mu ni sàkku ji leen xam-xam donte da ngeen di dem ba Chine ndax sàkku xam-xam faratale ci góor ak jigéen ñun nag Sénégal dañu yaakaar ni góor ñi rek ñoo war a sàkku xam-xam ñoo war a nekk di jiite di kii sàkku jiite moom góor a koy def waaye sàkku xam-xam moom war na góor war na jigéen beneen bi ci des bu may bi may ñaan waajur yi gis nga xale doom boo ko yoree mu toll nii man lii ci alquran bu ko bàyyeeg daara ji kese nay nafar que alquran soo ko jàppee mu jàppale la soo ko bàyyee mu bàyyi la mais xale yi buñ tolloo fii dañuy mën mais bu ñu commencé màgg ba génn ci daara daanaka liñ jàngoon yëpp dañ koy fàtte sa loolu li ñu mën nii ñu nekk ci kër yi yor seen téere di nafar dana tax li ñu jàng des ci seen dënd macha allah ñu bàyyi ci xel bu baax kon yéen ñaar yéen a bokk saa aywa nag ku nekk jël micro mu xool ban saa ngeen di tari. Suuratul Xamir. aywa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku jot incha allah jubaliwaat foofu tabarakallah yow la kat. mama Khady. mama Khady loo ñuy jàngal. suratul baqara. ah est-ce bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء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 من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلون لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرنت يالا بو تيد بنينا من سما النجاة كنوبي تي الله شكرا لكم باخ باخ باخ تاكلن كو باخ باخ باخ ما شاء الله macha allah tabarakallahu yàlla yàlla guddal fanam def ko mag te ko ci barkeel tamit jàng wér na gis naa camara gis naa jàngkatu alxuraan yaa ngi simile ñoom sëñ Balla alxuraan ñi ngi simile macha allah xam naa jàng bi moo leer moo leer te set eh, tabarakallah oustaz xale bi li doon jàng léegi dafa am lu lu mu fàttali aw ka zaykin min as-samaa'i fiihi zulumaatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluuna athaabahum fii aazaanihim min as-sawaa'iqi hadara al-mawt dafa am dañoo nekkoon fii ci jàkka ji mais bi dënn gi dóoree am na koo xam dafa tiit ba ni dënn gi fii na daal. ana ana xale bi ana xale bi ana ki doon jàng. <laughs> mais mais mais dënnu nag wax dëgg yàlla mën na lu ne waaw. beneen bi xale bi nee na yonente bi nee képp ku noppi rek mucc kon noppi tamit wax dëgg yàlla day muccal doomu aadama macha allah ah xale bi ni jàng am na solo trop kon di ñëw ci. mel ni coow li nekkatul ci xale yi de ci mag ñi la de ci mag la de day mel ni su ko defee ñu présenté leen rek suñu mbokk yi fi ñëw léegi euh, ak nag délégation bu am solo euh, dafa bokkoon ci ñi nga xam ni ñoom lañ darajaale bés bi muy parrain yi Serigne Babacar Samake moom moo ñu invité woon fële ca Almadi premier premier janvier. premier janvier ca Almadi dañu ko boole woon ci pare yi tey ki nga xam ni doomam la nekk bras droit nekk léppam muy Serigne sama Samake moom moo toog nii ànd ak délégation bu am solo macha allah ñu ngi leen di nuyu bu baax sëriñ Moussa di la di ziar eh, góor gi di ñaan yalla yalla yalla yagal ko fi yalla bay ko fi te yàlla may len tamit kàttan parce que gis nañu kéro biñu fa ñëwé ah, li fa dajé ci xeetu doomu adama yu bokul fuñu juggé ngir yalla ak jëmmé góor gi ngir yalla ak teraanga bo xamni ne gi mu ngi koy dimbalé jaamu yalla yi wax deug yalla bari won na lool lool lool lool sha allah kon si ngeen amee lu toll nii yàlla def ah olof yi li ñuy wax rek teraanga moom teraanga rek moo ko mën a fay di ngeen ñu boolee ci xéewal boobu parce que loolu laay wax ku am lu mel noonu yow woo la ci yaakaar naa daf lay yéene yiw parce que defe naa jotaay boobu jotaay yiw la woon ba ñu fa demee tamit wax dëgg yàlla la ñu fa gis macha allah dégg nañ fa tamit loo xamante ni nii wax dëgg yàlla bu ñu toogoon amaana mën nañ ko bañ a dégg wala bu ñu ñëw muy ci relation bi du am ba tay ñu xalaat di leen paré né ngeen di ñëw lolu sant yalla la ñu ci sant bu baaxa baaxa baaxa baax di kontaan ci ñëw bi ak fekkee bi ngeen fekkee si jotaay bi euh dëgg yalla li tamit dina tax ngeen gën a jaxasoog waa dëkk bi gëna jaxaso wa waa jumaa ji ba ëllëg buñ fi yàlla bàyyiwaatee ba premier janvier délégation bañ defon dana gëna def bu ëpp doole bu pour ñëw foofu wax dëgg yàlla parce que li tamit dara mënu ko fay macha allah kon su ko defee ñu eggali euh, balaa muy euh, comme 17 heures lañ joxante woon heure ñu jéem a eggali rek aja ñëwal yow loo ñuy jàngal waaw ban saar nga ñuy jàngal Assalamualaikum warahmatullahi taala. wàcc leen ko mu dem toog sadaqallaahu al-aziim aywa ku ci daal maam Bekkaay maam Bekkaay Diop maam Bekkaay maam Bekkaay moom defe naa waa waa Daaru Salaam la ok Adja looy tari suratul ah ala waaw bismillah assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن القى ولا يا 是啊。 المستقيم ذي العمود دينا مسكينا سدينا saafara te mën a faj yal na saafara te faj jàngoro yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jigéen ñi nga xam ne ñoo nekkoon fële ci wàññi macha allah ah, yal na yàlla dolli sutura yi yëpp ah ñaanal tamit waaw yi nga xam ne macha allah chaque àjjuma bu jumaa ñoom la macha allah ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla dëgëral leen kàttanal leen te sàmm leen bu baax a baax a baax a baax ah yéene ci tamit suñu imam ratib nga xam ni ginnaaw yàlla moom moo fi nekk ci daara ji li ma waxoon keroog ak